Kamago Madara. Eh, Satuleli, Fekeleli, Lailelela, Kamago Madara, Tafago Madara, Namazo Bai, Tatuleli, Tatuleli, Lorraine. Uda fenda, bari ko, uda funda, bari ko, bara, sabari ko, eh. tàccu leen lii lépp kuy kandak eh eh la kandak la kandak kandak la kandak la kandak kandak bëggee muy sincère bëgguma na ko basataan ren ko lan dindi ma moom na ko wala xaar bëgg na takk fan daa amul na ko na nag na ko rek daa amul ba ne dof la ne dof la ne na loxo yi alhamdulillah xamaguma dara defaguma dara ma day fatuma loxo woo ko sasamada yaay boo italia woo ma fekkee leen nasal te yaa ko jàppale yaa ko yokku fit wala yaay teere reer laay lele laa laay lele laa defaguma dara defaguma dara batama sabari dama sabari batatama sabari borom na ne dëkk na féete da njaay dëkk wof njaay dëkk sos njaay dëkk dama da njaay ay doom unafunga unafunga unafunga baya sabali kwa Prende na bafari, mwana gapo, ya kapare, zetai Wa arotigan, ya isabale, ya majapale Wa maja, tajuleli, wa pasel, la ilalela Hama kumatara, Ousmane seede Ousmane Papa Dieng seede Lamine Mar Binta Gueye Badara yaay sama xarit yaay booy borom fee woo a papi comme États-Unis yaa ma jàppale woo ma Badara Kebe na ko kakataat grand bolam dindiroo moom na ko wala caat bëgg na takk fay daa amul nit na ko nan nag bëgg na pare daa amul baat na ndofla na ndofla na ndofla eh na loxo yi daje am naan yaay sama xarit yaa ma jàppale mooma Pape Malick sama ma jàppale yaa ma jàppale Fatma Dieng ma jàppale waxaam yaay seen awa bàyyi leen lii ba baax. waaw dëgg neexul dara fayu ko. dara fayu ko dara fayu ko Ouzin toj na fi macha allah waaw Ouzin li nga def fi yaa ko tey. ah Aïssa bañ ngeen mer. ah man sax mujjee naa cee fecc man fecc naa sax man yëkkati naa tànk ah tey may leen loxo Ouzin bu baax a baax may leen ko loxo Ouzin ndax ñëw na yëngal li nga xam ne moom mooy plateau Mode Tendance Show. damaa kontaan. dëgg la. ñoo fekk xale yu baax yi seen wafet. dëgg la. ñun Sénégal na war a tuwaaru Sénégal. dëgg la ndax na war a xam ne ñun ay doomu. جبنا ايدوم السنه جاي من اول دكتور السنه واو نختار السنه دفعنا بحط طلعت طلعت السنه اه طلعت السنه طلعت السنه ما لها طلعت السنه المباح طلعت السنه الله انا مالها هذا ما لها <laughs> وزين انا نقعد في تراسونال تراسونال نجيب تراسونال يا اخوان السنغال نخ امين نخ من نام وزين ما لا قد يجلس ما دمانك سلي هنا واو وادو ترى دي بره بال لو خمنه xam nga damaa xam nga damaa bëri bërigo yi. waaw da nga bëri bërigo yi damaa bëgg bii paa. waaw ma ramasse bërigo yi. waaw ramasse satala yi. dëgg loolu ramasse kudu ci waa ramasse lépp. dëgg loolu bare ko loxo bu baax. <laughs> fas yéene doon alkaati. xam ne Ouzin Keita mu sol tënni la loolu lu xam loolu bës la. loolu <laughs> dara Ouzin bu sol tënni du ma fi fekk du ma ko. non non xeetu. samay xeeti daan la moo tax si télé bi yéen seen bi bu chiffré xam loo doon bës la Ouzin waxuma la bës rek loolu kay mondial la di wax waa Sénégal ñu préparé lu bees tàkk dëgg la Ouzin Keita à Ramas uh-huh. à Akad <laughs> eh! wuy ma ciao ma la ko bu baax a baax Ouzin waa ku kay daggante yaa kay daggante ay ku kay daggante ak koo leen bëgg yow foo leen ma dem 아이고 까이 담갔대 아이고 까이 저렇대 야 까이 담갔대 그 할래 버스 그 watch a step yow ma as à bientôt waaw bokk lépp semence bokk romance romance da ngaa waaw wuy ma waaw fexeel ma fi bàyyi sooy romance dégg waaw bu wax dara wuy ma waaw xam nga kan laa bëgg a ramaas. koo bëgg a ramaas. nee ma kan laa fas yéene ramaas ko. kan nga fas yéene ramaas Ouzin. si ca biti wuyu ramaas dégg nga. a ramaas dégg nga. biti ngay ramaas. Oh, moom laa njëkk a ramaas. ah kon nag tàcc leen loolu siste biti lay ramaas may loxo bu baax Ouzin moom nag siste biti lay ramaas.